xibaaru yéenekaay yi. la yëglekaay yi xëyee ni ki tey ci ñu doore ko ak lu doy waar mu di ab l'accident bu am ca Malem Odar ubbi l'observateur mu xëy duñu nettali musiba mbaaba kumba ba am sa mbajaneen l'observateur ne ma ab camion citerne moo tase ak minicar ba daal di faat fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama juróom ya si ñoom ay jigéen lañ l'observateur ne ma yenn ci néew yi sax ñoom dañoo dagg camion be soog di leen génne kenn ngi nii ku rëccee ci boobu ka accident di nettali mbir daal di ne kay man fukk ak benn ci samay mbokk ñoo ca loru ñaar ñoo xamante ni samay mag lañ li ngeen mën a fekk ci l'observateur li mu doomu aadama yi ñàkk seen ko bakkan ci la tribune ne ma koy àdduna ba moo wàcc ni ki démb ca Kaffrine fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama fukk juróom-ñett am fa ay gaañu gaañu yu méttee méttee ci li nu mel la la tribune descendi daal di biiral bilan bu atum 2016 daal di ne kay juróom benn téeméer ak juróom benn ci ay doomu aadama ñoo faatu ci l'accident las quotidien ne ma fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan suñu naataango yooyu naa ngi naan fi mu toll nii li mu doomu aadama yi ñàkk seen bakkan ci fukk ak juróom-benn la tollagom ña ca des nag moom fukk ak juróom-benn la ñoo xamante ni gaañu yu doy waar la ñu am ab camion citerne bu jugee ca diwaanu ko Mali moo dal ca kaw minicar bu doon yóbbu ay nit ñoo xamante ni dañ doon jaay ca marché luuma bu Misra ca diggante ba président Barrow ñibbi na Gambie ubbi le quotidien le quotidien mi ko duppee cahier de retour au pays suñu naataango yooyee muy dem sénégalaise bi ak ñoo ko gunge Vox Populi ne ma président gambien ba dellu na ca dëkkam yéejuk doomu aadama ñoo ko gatandu la tribune ne ma koy juróomi fan gannaaw demuk Yaya Jammeh baraw ñibbi na këram baraw ña ngi ko teextu nañuy teextoo buur las quotidien di ma ko xamal le quotidien enquête ne ma Ousmane Sonko nekk ex bras bu Jammeh ak général Bora Colley nekkoon numéro 2 bu jongleur teg nañu leen loxo manaan keneen a ngi nii ku ñu nar a teg loxo wala ñu daal koy daan ak du ci mën ci am Vox Populi nee na ma koy fukki ati kaso moo ko nar a fekk ci procès bu ndéem si yàlla Ndiaga Diouf Vox Populi ne ma baax te ëllëgam mi nga ko fas yéene a xam fukki fan ak juróom-benn ci weeru ko février boobu journal nee na ma kay jàkkaarloo bu doy waar moo amoon diggante avocat wa procureur beek juge bi waaye avocat yu défense bi di moom ñu ngi ko duppee procès Roussel procès boo xamante ni munta nekk ndax procès boobee mbir ya dara leeru ca l'observateur ne ma avocat yu baax ca procureur ba lañ doon dal suñu naataango doon attendool fukki fan ak juróom-benn ci wii rek février la a xam seenu ko ëllëg Barthélemy Dias da doon fodee waaye ñàkk na direct info ne ma Barth daal dinay biral ni moo faat waaye day Barth la muy sàkk moo di rek ñu atte ko wàll ku yoon ak ubbite cours et tribunaux yi Walf Quotidien ne ma kay magistrat yi seen yëre yu tilim yi ci mbedd mi lañ ko doon fóotee daw naa ca politique bi tase bi nar a am diggante njiitum réew bu Sénégal ak waa Manko Wattu Sénégal du am nga ne ma direct info moo ma ko xamal ndax ma waa Manko Wattu Sénégal dañu nar a boycotté réew mu quotidien waxtu boobee dara soxalu ko lu dul ay rënk-rënk rawatina rek ay blocage tax rek mu ne ku moy législatif yi dañ ko nar a dàqandi li ko waral bari na mu di teg loxo bi ñu teg waa Iris Corporation loxo leneen a ngi nii mu di seen compte yi nga xam ne dañ ko bloqué waaye machine yi nga xamante ni saasu ne rek day paan ngir ñu defar carte d'identité bi la ca gën a doy waar mu di rek jamono yi élection dafa nar a tombé koor gi rawatina taw bi Sénégal Cameroun samedi la de lan moo nar doon caabik boobee match quotidien stade di laaj li ñu mel te naan rek saay bu ñuy tasee moom Sénégal ak Cameroun wax ji danañ ko bari lool waaye fi ñu toll nii xeex bi jëm ci milieu de terrain man li ma ci jaaxal moo di rek waa Cameroun bu ñu daanee Sénégal kenn ku si nekk dinañu la jox lu ëpp fan fanweeri ko million ci suñuy koppar laa ilaha illallah waa ñun nag ba suba.